يقول الموضوع الدكتور محمد سعيد رمضان البوتي ني نعم، التصوف تصوف إيه. اسم تور لا حارس بسسو إيه. لمسمى نيال نعم، من تد قديم بجيتو إيه. تصوف بري تور بي دا فا بري لو تصوف لامبو موم مسو في جوك نعم نعم mooy هوتي yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamee فقه tur yi moom dafa sos amaa lam làmboo cay àtte mosu fee jóg naam is ngir mu samaahu tudd maanaam lañ tuddee te suuf laa yaa du jéggi kaw nekk di nekk sax yan di jëf ilaa tazkiyati nafsi jëm si sellal bakkan min awdaari ci ay lor alaaliqa yi aju بهاي تبقى كلمة عادة جادة تصوف ماي جيم الجف جف جو خمنا سدل سبكان بموت تلوري غا خمنا في أجو تبكان نعم. كل حسدكم أنيا نجيم نبو والكبر أقري وحب الدنيا أكبر وحب الجاه أكبر درجة أكبر من ملنون وذلك الأول من كل ابتغاء وتوجيهها mooy sàkkoo jublee ne bakkan bi laa xubbillahi jëm ci bëgg yàlla azana lu ma jëla tamit génnee ci bakkan bi bëgg lu dul yàlla mm. def ci bëgg yàlla rek mm. ak fuglu ko teewlu ko jaamu mm. loolu mooy nga loolu mosu fee jóg warida ak gërëm am ci mm-hmm. fexe ba gërëm lépp lu yàlla dogal fexe bay wakilu fexe bay sellal ñaan loolu rek mooy tasawuf dégg nga mhm. kon tur moom mën naa am sos la mhm. waaye la tur yi làmboo mosu fee jóg boo xoolee lislaam mhm. jàngal quran nit yoonu tudda ko doon tajwid waaye baatu tajwid moom al mu tajwid moom du sosu la mais lam làmboo mosu fee jóg jëlee nag att yi ñu ko indil dëgg loolu du sosu la naan li ma ko fi ixfaay ñeneen ko doon pratique rek mais wutaluñ ko ay tour ñun nak dañ koy pratiquer wutul ko ay tour tout sahabi da ñu julli da ñu def farata yi ak sunna yi xamew na lay farata ak lay sunna mais wutul ko woon tour suñu jamono gi dañ ko wutul tour ne lii mooy farata yi li moy sunna yi lii mooy ngëneel yi ba mu jeex tasawuf tamit dañ ko doon pratiquer ñu don doon la sen bakkan yonente sallallahu alayhi wasallam da la jox ay dog ne ku xëy na ko def boo gontee suba ngoon daana jox ay dot wutal ko bis maanaam wutal koy heure suba ngoon moom it daana ci nekk sallallahu alayhi wa sallam waaye wutaluñ koon tur tuddewuñ koon tarixa tuddewuñ koon tasawuf loolu rek mooy différence bi su ko defee nga jël li nga xam ne mooy gën a sell ci mbir yi te mooy sellal bakkan bi ba lépp lu yàlla génn ci yàlla dugg ci di ko critique parce que wutal nañ ko tur bu bees yeneen yi nga xam ne ay bànqaas la ci lislaam critique ko hmm. te wutal nañ ko tur bu bees comme tasawuf hmm. dafa am loo xam ne dañoo jël li aju ci wàllu jaamu yàlla rek lu nekk ni wutal ko tur hmm. tuddee ko benn fànn muy fiq am jël ci wàllu jàng alquran rek lu nekk ci ni no yonentu jàng alquran ni mu ko doon pratiquer mu wutal ko ay tur ne ixfaay izhar nangam meññee dañ ko doon pratiquer rek mais wutaluñ ko woon tur ba pare hmm. lépp na mu tuddee ko benn tur muy am mu tajwiid ah hmm. noonu la su fekkee jëlee li aju jikko hmm. ak yar nit ki fexe ba def ci moom bëgg yàlla génnee ci moom caaxaan su ko defee nag lu nekk ñu wutal ko tur lii tariixa la wérde yaa ngi nii lii wérde lazim la suba ngoon fekk yonentu daan la joxe wérde suba ngoon danañ ko jàng sallallahu alayhi wa sallam tur yooyu ñu ko wutal taxut mu nekk leneen lu bokkut ak loolu yonent doon jëfandikoo fay na nafsa naka bakkan bi maa daamat fekk mu ngi sax musqalatan di luñ diisal bi ruunaatiha ci ay tilim tilimam lan tatafarraxa du féex bal li fi nekk lan tatawajjaha du mën a jublu ilaa shay'in jëm ci dara min haadihi alwaajibaat ci yile warugar wa yabqa dana des al islaamu lislaam fi xayaati saaxibi haadi nafs ci dund bi leen borom bi la bakkan te di mel ni kilimaa wa rusuma ak ñu bakkan bu setul laab du mën a xegg ci maqaama yi foo bakkan bi tilim tilimi bakkan bi dañ lëndëm lëndëm gi nekk ci bakkan bi dañ bëgg àddinaam dañ pour yàlla xaj ci xolu jaam pour gëm yàlla mën a dugg ci xolu jaam boobu mm-hmm. yonentu wax na ko inna laa tayibun laa yaqbalu illaa tayiban yàlla ku teelu du nangu lu mooy ku kon koo xam ne dafa tilim bakkanam tilim bëgg àdduna bëgg daraja bëgg lu ne pour mu am yàlla du mën a nekk kon am na xam-xam yoo xam ne nii mm-hmm. faw se nga sell pour door koo am moom la yàlla di ñu wattaqullaha wa yuallimukumullah am na xam-xam bi la yàlla jàngal moom ragal yàlla moo ko xamee amaa xam-xam bi nga yéeg si téere yi ku nekk mën na ko am moo tax borom xam-xam bu kàccoor am waaw moo tax ñu ay nit jàng tawraat ba pare jëfee ko yàlla ne comme ay mbaam rek su fekkoon ne xam-xam bu mu mën a doon rek foo nga seetlu door ko am kon ku ragalul yàlla du mën a am xam-xamam zaahir mais danga gis koo xam ne ragalul yàlla waaye yàlla may ko xam-xami téere am amma xam-xam bu la yàlla di jàngal moom kooku ragal yàlla rek moo koy maye kon am na xam-xam boo xam ni foofu nga set doo ko bu dul loolu boo tilimee lislaam dafay mel ni climat buy soppeeku si yow tey nga góorgóorlu suba nga teel gën a teel ñëpp waaw tey daal dañu góorgóorlu xaaral ma jaamu yàlla nanga ñaari fan ñetti fan nga mel ni héevér boobu saggan sàggan saggan saggan góorgóorlu góor góorgóorlu saggan ci loolu rek ngay dégg mais doo nekk jaam mukk bu taxaw di liggéeyal yàlla parce que teeyoo te yàlla nee na nangu lu may ku kon du tànn liggéeykat bu teewut yàlla balaa mu lay liggéeyloo nga di ko jaamu mu jegeel la boppam foofu da ngay set ndax moom ku rek lay nangu su bakkan bi sa borom dafay mel ni rek lislaam mbind ma rek fa nekk mën na laa wax qaala laa wax qaala rasul alquran lii la wax waaye du ci jëf dara du ci jëf dara léeg-léeg sax mu soppi la yàlla ndax topp bànneex bakkanam wala mu wax loo xam ne wóor na ko du dëgg ndax am na ci intérêt su ko defee tasawuf loolu rek lay xeex lan moo bon ci li yow nag su fekkee sa bakkan setul ba nga xegg ci yenn xam-xam yi bul ko weddil ci bakkanam set ba mu yegg fa mu ne wa ma xaqiqatul lan mooy dëgg-dëgg jihaad allazi jihaad bi nga xamante ne takarraru takarraru دنبامو الدعوة أوت إليه جمس مون في كتاب الله يشتير يا العز وجل تماقنا في مثل قوله يجل من الوحي على جمنان وجاهدون الجهاد في الله يشتير الحق الجهاد دق دق جهاد من الجهاد بوب دق دق جهاد بوب نكت إلا مجاهدة النفس لما جهاد بكر كي حق بكر في تطهيرها تلابركم من تلك الأوضار تيويل الوحي ثم تحميلها تطمئنكم بهذه الحقائق تيل دق دق جهاد دي يلا جواتي في القرآن نكل لمي نفخ بلا بلا سبكن بي تي جيكو يبون بي ولا بو موي بي جيغن فور ndax yoonu su def nañ ñu jugee ci jihaad bu ndaw jëm ci jihaad bu mag ñu laaj ko luy jihaad bu mag mu ne mooy jihaad ak bakkan fexe ba dindi sa tilim tilim bakkan yi loolu mooy jihaad waaye léegi damay laaj. Hmm. jamono yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi bu daan jihaad jaase nañ naan ak ay gërëm ay fett yooyu tey kënu pisare ndax dañ ñoo naan loolu bi daal yii ay jumtukaay la yuñ mën a reyee xéeféer bii. jumtukaay boobu fu ñu ko mën a jëlee dinañu leen tuddaa ko def dara ne ko ci waa jumtukaay boo xam nii nag dafay xeex tilim tilim bakkan te sax dara wuti wuti ñàngale yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loo ci laal rek yonentu daan na ko def benn muy tudd yàlla benn muy beru yonentu lu mu njëkk def mooy beru dem ci waaw xira xëy na maanaam doo si gis benn changement lu mu wuteeg njàngale mi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu mooy ne dañ ne rek ni doon yonentu defee fa force façon boobu rek nga ko waroon defee te jamono yi bokkul loolu mooy différence bi maanaam jël tur bi doon yonentu sallallahu tudd tudd kese ñoom ku leen xamal yonent bi tur mu tudd yonent wax na la danaa jégalu yàlla si bis bi téeméer yoon yonent bi nga xamoon na tarix loolu lañ tuddee tarixa di xëy rek tudd yàlla téeméeri yoon loolu lañ tuddee tarixa di yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay santaane ne nit di wax laa ilaaha illallah tudd yàlla lu bëri te moom bu xëyee du wax laa ilaaha illallah yonent bi daan def tudd tur yàlla yëpp daan na ko tudd ndax moom bu ñuy sant dara ba pare te du ko def wér da sax amoon na ko wér da laazim suba ngoon danañ ko jàng léegi ci ci gannaaw ci darsu bi yonent bi wax ne ma toog ay nit yuy tudd yàlla gannaaw julli suba ba jant bi di fenk moo ma gënal ma goreel ñeenti nit ci doomi Ismaayil ma toog nit yuy tudd yàlla gannaaw julli takkusaan ba jant bi fenk hmm. ba jant bi so moo ma gënal ma goreel ñeenti ci doomi Ismaayil loolu du tudd yàlla goo xam ni suba ngoon la mu santaal loolu mooy tarixa yi toog ñooñu yonent bi ne moo ko gënal mu goreel loolu te boo goreelee ab jàmm cër boo goreel ci moom rek yàlla goreel eh, cër boobu si yow safara yonent bi tànn tudd yàlla suba ngoon mm. ne moo ko gënal goreel ñeent sax ci doomu Ismaayil loolu du tarixa loolu mooy tarixa tur bi rek bees mais pratique bi dara beesu ci su ko defee yu mel nii nag la ay nit di la lëndëmalal di di di tuuma mais suñ paree ci lii dañ dem ci fiq suñ paree ci lii dem ci tëj bi suñ paree ci lii dem ci mustala xadis suñ paree ci lii dem ci école yi suñ paree ci lii dem ci diplôme yi suñ paree ci lii dem ci conférence yi ñuy def suñ paree ci lii dem ci téere yi ndax yooyu yëpp luñ sos gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee lislaam jógee fi loolu lañ bëgg kon tariqa mosu fay jug ndax du lu mooy tudd yàlla suba ngoon te yonentu moo ko santaane sallallahu alayhi mhm. jël ab liim mhm. di ko wér da muy ab dog boo xam ne liim la mhm. yonentu sallallahu alayhi wa moo ko da ngeen ko woon moom dafay waxtu lu jëfe kon moom kay daan def wax na ne ahabul amaali lillaahi adwamuha wa in qalla buxaari andi ko muslim andi jëf ji gënal yàlla yàlla jëf ji mu gën a bëgg mooy bi sax di la néew nag kon liim bi amul problème lim bi amul problème ndax yoonu daf ne lu néew néew rek baax na sax kon nga jël benn liim di tudd yàlla saxal ko lan moo ci nekk te yonentu ne jaamu yàlla gi gën mooy bu sax yonentu amutoon benn tarixa ko waxoo dëgg tur moo bees mais daan na tudd yàlla li ñooñ tarixa def yëpp moom noo yonentu sallallahu alayhi wasallam doon def ñooñ tarixa dañoo dañoo taxasuus jagoo ci wàllu jikko rek luy defar jikkoy nit ki bàyyi fiq ak yeneen fële ñoon fiq jagoo ci wàllu jaamu yàlla rek ñun tajwid jegoo ci wàllu jàngal quran rek li la yonentu tuddi pratique rek ñoom ñu wutal ko tur loolu rek mooy différence bi mais tuddi daan tudd yàlla suba ak ngoon ndax daan na ko santaane te moom du waxta du def atamurun nas bi biri wa tansawna anfusakum wa antum tabduna kitaba fala taqilun waxna ne ku wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul wa huwa alaa kulli shay'in qadiir téeméer yoon boo waxe yàlla bindal la tiyaabaab ku gëreel fukki jaam te nit du indi li gën li nga indi yow wax ci ngeneen lu bari yoonu dañoo sant rek te moom du ko def mais même bu ñu ko rek sant gi rek doy na pour ne lii sund la wax na ne kenn du def li nga gën kenn du def kenn du indi li gën li nga indi lu mooy ku def lu mel ni li nga def mu ne mu ne leeral ko ne lu mooy ko def lu ëpp maanaam li nga def kon wird téeméer yoon yonentu santaan na ko wird lu ëpp téeméer yoon yonentu santaan na ko gis naa benn waaye bu doon di nga def ah naa Ahmed loola wala moom maa ko déglu mu ne am na doctorat mu ne wirda kurus bi daala lu tax mu nekk biddaa ndax kurus ñu koy def ñoom mu ne compte compte téeméer taxul ñu def ko ndax compte téeméer jarul kurus ku ko wax compte téeméer jarul kurus xel yëpp yem mu ne compte téeméer jarul kurus waaye li ñuy compte dafa ëpp téeméer te compte la ëpp téeméer loolu jaaduwul biddaa la santaane ci xadis boobu ne ku def lu ëpp téeméer mm. moo lay ëpp tiyaaba yow mi def téeméer ki def la ëpp téeméer moo lay ëpp tiyaaba mm. nga ne compte compte la ëpp téeméer jaaduwul te yonentu wax ne li gën ci mbir rek mooy ba ci gën a sax ak di néew xam nga loolu da ngay da dem ba mu leer na lii du lislaam parce que bu doon lislaam wax dëgg yàlla nit du jàng ba ay ati at at nga jàng bu waxee nga yaram ko bu waxee nga yaram ko loolu lislaam kon yonantu daan tudd yàlla santaane na tudd yàlla yëpp subaa ngoon wutal ko heure loolu rek mooy tere loolu mooy tariqa fa adlamati dunya kalay su ko defee su ko defee li taxoon a loolu nag mooy xeex ak sa bakkan bi xeex ak sa bakkan bi ba mu bëgg yàlla ak yonentoom mu gënal ko ne jikko yooyu yëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko bu ma jihaad bi jihaad bi maali ci bakkan fii saxaatal xitaal yi ci jamono xeexee illa min furon shajarati hada jihaad lu mooy mu bokk ci bànqaas yi garabu bi la jihaad al asaasi bi fondement allazi bi xam laa budda déet ñàkk déet jaas mënu ci moom xabla kulli shay njëkk lépp lu nekk jihaad ak alal ak bakkan mën ngaa wax ne bànqaas la ci jihaad maanaam jihaat ak alal joxe sa alal ak sa bakkan ba dee hmm. banqaas la ci jihaat bii ñuy wax mooy fexe ba sellal si jikko loolu mooy jihaat bu mag bi yonent ko ko tuddee lu tax dem joxe sa bopp ca xare ba nekk bu ndaw bi fexe ba setal sa bakkan nekk bu mag bi ndax xare ba buñ la ci aljana nga jëm loolu mooy doyab jihaat boobu jihaat bii nag ku ci shahid ku fexe ba rey sa bakkan boobu maanaam sa tilim tilim mu yi nga dindi ko boo koy rey rek dellu ci sa borom te yàlla gën a màgg aljana mhm. kii ka ci seyit aljana la jëm mais jihaat ak bakkan maanaam tilim tilim bakkan ku ci seyit rek di aarif billahi mhm. moo tax yoon tuddee ko jihaat bu mag lii rek ci la sufiyanke yi nekk mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa laaj na ko sax ay mbindaan yu ko liggéeyam mu xeñ ko daan tëdd ci ay basaan moom yonent bi sallallahu alayhi wa ba yaram bi di marqué. yàlla daan indi àdduna ak li ci biiram muy joxe ba jeex tàkk di xiif bay takk biir bi. jihaad boobu rek ci la suuf nekk lépp jikko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa gis àdduna nii wurus yi nga la xaaral ma nekk àdduna doje na la xaaral ma nekk wurus nga jëriñoo ma nga nekk soxlum àdduna. di xiif ba takk sa biir bi ba ba ngay génn àddina bàyyi woo fi lu may saañoo peppam saañoo boo xam ne ni si moom ndey Aïcha ne war la fi bàyyi lu ñu mën a dunde dem ba saxaaba yi di lekk ay xob ba bu ñu demee gannaaw kër nga ne lii ay bëy ñoo fi doon dem gannaaw kër kooku daaw xeex ak bakkan yi boobu rek si suuf yaa ngi nekk loolu jikko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam pourtant doj yi mënoon naa jël doj yi muy wurus même bu ko jëriñoowul moom sax saxaaba yi jëriñoo ko mais lu tax mu dëddoon àdduna noonu di leen xiir ci tudd yàlla suba ngoon loolu mooy tasawuf bu ma baatul ismi lan mooy bàkkaar bu nëbb bi allazi bi nga xam ne takkaral baamu na daawatu ilaahiya xoote bi yàlla ilaa darurati tanazuhi جمت لروب سب وطرفو يكتوك عليه تموم في مثل قولي تملو من اللي وخير جمنا وزرو بايلا ظاهر الاسم بكاري فاني وباتنو أقنبو يالنا نغن باي بكاري فاني أقنبو بكاري فاني ونخمنا لن موي بكاري نبوي موي تلم تلم بكان بي لأنه نك كي خمنا لي لغيم يب فخي با تلم تلم بكان بو دنجك لا جانجل يب لون لا خوتم يب لون لا أنا نكش بدا te lii aaya alxuraan di ko santaane bàkkaar yu nëbb yooyu nekkul illaa hadi tabaai lu mooy jikko yi bal li fi nekk arraunaat an nafsiya tirim tirim bakkan yi allati bi nga xam ne tax bu dafay hiir al qalb xol bi an mushaahadati al xaqi wala seede yàlla xol bi lay hiir sa borom ndax tirim tirimu bakkan loolu lañ fexe bëgg kiiraay googu dañ mm. ci seetal sa bakkan وما الدعوة لن يهوتي إلى تزكية الامتسال للبكن المكررة بيبامو بأساليب سيعي فصل وشفتا يتقلق في القرآن في القرآن في مثل قوله في المال وخيال عزنا وجنة مقنا فقل وغل هل لك نحن أن نرى إلى أن تزكى أنقسل وأهديك مجوب إلى ربك جن صبر فتخشى أن نرى غلالة هوتي جني واتي سيسل للسبكن القرآن هي واتي سيعي فصل comme laaya ji mhm. boobu lan nga yaakaar lan la illaa daawatu bi mooy xoote illaa tadhiri nafsi ci laabal mhm. ak tirim mhm. kon alxuraan moom moo santaane ñu sellal bakkan bi bàyyi tilim tilim yi nëbbu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ko jëf ak saxaaba ci dëdduloo leen àdduna comme noonu ma ko waxee léegi jublu yàlla rek ku nekk ci loolu fexe nit ñi nekk ci loolu ana lu bees lu sos mais tur bi rek moo bees comme nuñ jëlee la la yonent di pratiquer ci julli tuddee lii farata lii na lii ngeneen mais tur yi moo bees mais loolu yonent bi daan na ko pratiquer ñoom ñu xool nag na ko doon yonent pratiquer lay farata ñu tuddee ko farata lay sunna bu ñu tuddee ko sunna ba mu jeex tuddee matière bi fiq tasawuf it noonu la zikkar yi rek ñu tuddee tariqa tuddee ko wérd laazim amaa kurus gi ngay jël di wérd yaakaar naa ne moo gën a simple montre bi ngay jël di ci xool heure te bi ci ker yi la doon xool heure ker moo ñëw yow nga bàyyi fi ker boobu nga xam ne mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ jël sunna yahudi defar montre di ci xool waxtu julli tusubaar jotagul sax xam nañ kañ lañ koy julli kañ la yonent bi mos def loolu mosu koo def bi daal nga mën a moom pour nag di ci xool heure waxtu julli nga ne kii mënul jël kurus di ci compte te kurus wax naa ne moom sax na sax ci mag ñi ñu ko doon mm-hmm. ndax bu muslimal xaw a daal mm-hmm. sànni nañ ko safara safara si lakkut ko loolu wax naa ko stafir ci gannaaw xam nga ibnu xataab bis ku ne maa ngi sant yàlla bu ma gisee ci xeetu yonent ku yàlla may karaama boo xam ne nii mel na ni bi mu may moo gise bi mu mayoon yonent ci ibrahima kooku ci bidaaya wa nihaaya gi ba nelaw kurus gi mm-hmm. mu di sabbal di sudd yàlla mu yeewu wax soxna si ne bu kaay xool soxna si xool gis kurus gaa ngi sudd yàlla te ci jamono yonent bi daan nañu wérd di di tudd yàlla di jël ay kooku tàndarma di compter am maam montre yi moom nga xam ne aada yahudi la hmm. sunna yahudi la nga dekkil ko rayee ko sunna yonent yàlla Muhammad ba pare ne yow li nga def baax na kii di jël di compter nga ne biddaa ci yow <laughs> xam nga loolu danga hmm. loolu lañ tuddee tariq loolu rek yonent def doon ko santaane suba ngoon danañ fi wa man ixsaan moom mooy rafetal alladi bi nga xam ne arafu xam na ne ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi hadis Omar ibn Xataab ci hadis Omar ibn Xataab wa Abi Hurayra ak hadis Abu Hurayra radiyallahu anhu yàlla ko yàlla def ixsaan bi yonent bi jàngale hmm. mooy lan woowu man taabuda laa mooy nga jàmm yàlla ka annaka ba mel ni yow taraahu yaa ngi koy gis in lam takun taraahu boo nekkul di ko gis fay noonu nag moom yaraaka mu lay gis hmm. loolu mooy ixsaan hmm. fii nag damay wax ne yunus dafa wax ne mooy nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis gis <coughs> maanaam bi ngay gis yàlla ni ngay mel hmm. booy jaamu yàlla na nga mel noonu hmm. lan la yàlla wax mooy ñu hmm. jaamu kon saa su nekk nit ki si jaamu yàlla war nekk buy tëdd sax da cee war a jublu jaamu yàlla maanaam ngir dëgërlu ba bu yeewoo mën a joxe ak xel buy lekk lu si jublu noonu wut kàttan bu mën a joxe ak xel buy naan lu si jublu lu mi def da si waru jublu jaamu yàlla mu jaam parce que loolu tax ñu bind kon saa su nek jaam bi dafa war a xaal boo xam mu ngi mel ni kuy janoo yalla legi nak ñu dem ci biir alquran mu jangal ni kuy janoo yalla mu wara a alquran jangal nañu jigéen ñi bëggoon jigéen yi Suleyxa yi bëggoon yusuf ñoo jàkkaarloo yusuf fatte fatte jamal ak Jalaal ay fiiw yi mu ngi seen kanam loolu jamaal loolu neex la talatuñ ko ndax taalu yu suñuy fàttaloo na leen fiiw yooyu ñu ngi dagg seen loxo loolu jalaal la lu metti la mais yëguñ ko ndax taaru Yusuf fàttaloo na leen jamaan mhm. ak jaral fàttaloo na leen lépp lu rafet fàttaloo na leen lu métti taar bi rek doy na leen mhm. ñooñu mbëggeel lañ amoon ci Yusuf bu mel noonu alquran ne wallazina amanu ashaddu xubban lillah mhm. ñi yàlla ni bëggee yàlla moo raw lu keneen di bëgg yàlla yow su fekkee sa mbëggeel ci yàlla moo raw na jigéen ñi bëggee woon Yuusuf hmm. ñaareel bi moom kenn du sikk sàkk ne taaru yàlla hmm. moo dàq fuuf taaru Yuusuf bu fekkee jàkkaarloo Yuusuf war naa mën a tax a fàtte jamaal ak jëlaal kuy jàkkaarloo yàlla moom mu war a mel waru yëg dara hmm. lu ma yàlla moom rek nit jàkkaarloo naa li nga xam ne yàllaa ko dàq fuuf hmm. dagg boppam yëgul ko firwi si kanamam taratu ko yow nag bu fekkee yaa yow booy jàkkaarloo yàlla noo war a mel nga war a fàtte sa mooy fanaaw loolu moom boo jàkkaarloo yàlla boo doon jàkkaarloo yàlla ni nga war a mel soo jaamu yàlla na nga mel noonu boo doon jàkkaarloo yàlla ni nga war a mel booy jaamu yàlla na nga mel noonu mooy ne fexeel ba yow bul yëgati sa bopp yëgal yàlla rek moo tax instant liggéey ba boo yëgul foofu nag nga jàpp ne yàlla mun lay gis maanaam nga jaamu yàlla jaamu ne ragal na yàlla ragal na safar la koo gis moom mën na fàttaloo dara waaye nag bu fekkee gis ko am kattan la ko ne da nekkul illal gaaya lu bi nga xam ne laa yumkin du jàpp ne buluuxuhaa jot ko إلى من وراء هذه التزكية اللي لموشي قلنا بلا شدر سبق ومن وراء ممارسة القلب أكسي قلنا آه، جانكو أنت قلب لمعاني الحب نيال معنى مبقل والخوف أقرقل في أنها تنمم معنى يتمثل دفعي مثال لب الدين لجن سل سي دينه وجوهره التهر دين ولا دك دك دين إحسان mu ne mooy résultat wu xol bu set maanaam xol il faut mu set door yegg fii ci maqaama ihsaan man di jëlee xam-xam ci yàlla direct wa taqullaa wa allah kon suuf yaa ngi pour ñu sóob la faw ñu setal sa xol xam nga tarbiya mooy beru di jaamu sa borom di ko sellal di ko tudd doo fa tudd beneen baat bu dul tudd yàlla ba sa xol set nga xam sa borom yàlla xamal la boppam wa taqullaa wa yaalamukum la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana def loolu mais li ñu ko tuddee intikaaf rek lañu jóg tarbiya benn la rek turee tur tur tur moom du dara yonent daan na beru di jaamu boromam di wéet di niru niru malaaka yi di góorgóorlu pour gën a jege yàlla wéetaay boobu i'tikaaf lañ ko tuddee woon kon tur amul solo bu ma nee Cheikh neex nag fan yu sëmbi na tuddee haadaa lii mooy jaamu yàlla góorgóorlu ba sa xol set yàlla may laay xam-xam yu jógee ci moom na ko tuddee tasawufan tasawuf aw zuhdan wala dudd àdduna aw suluukan wala soobu aw muraqabatan wala fuuglu yàlla aw shay'an aaxar wala beneen mbir nu la neex tuddee ko. wala yadur du lor isa qaala boo xëyee hmm. insaan doomu aadama haada li xuruj ngeen la mën a diine ci diine setal sa bakkan ngir jege sa borom hmm. ba mën a yegg ci maqaama ragal yàlla gën a yàlla di maye ay xam-xam hmm. ku la wax ne li génn la ci diine aw muruqun wala génn la mën a sunna sunna aw kufur wala weddi yàlla loolu du la lor ndax defoo loolu yow kon foo nga góorgóorlu ba am ragal yàlla te ragal yàlla rek tamit booy góor ragal yàlla rek foo nga ragal yàlla waaye am na ñu dëgguñu yàlla wax ne yaa ayyuhal lazina aamanu taqullaah wa nga ragal yàlla ànd leen ñu dëgg waxal ne taqullaah wabtagu ilayhi wasiila ragal na yàlla ba pare dangay am gëm yàlla ragal yàlla nga wut wasiila wasiila mooy lan wattabi' sabiila man anaaba ilayya nga topp yoonu ku dellu ci yàlla am na ñoo xam ne dañ lay gëm la topp yonent bi lañ koy def ba nag dañ di wéral xadis boo xam ni su wéree rek foo di jàng yoo xam ne su dee kon soxla topp wéral xadis boo xam ne yàlla dana yebal ci bopp téeméer at bu nekk kuy beesal diine ci nan la yàlla yebalee kuy beesal doo ko topp. su fekkoon diine ji nekk ci téere yi leer naa ñu ana ko lu ñuy beesal dafa am luy lënt luy lëbb ba nit ñi fàtte ko yaakaar ne bokkul si moom mu ñëw leer la leen ko si moom nga ko mën a jëlee waaye kooku yàlla ko yebal xam-xam bala ràppoon moom mu ñëw ràppoon kooku fu ñu jëlee xam kooku bu fekkee du ku ñu war a topp ku ñuy topp ko foo ñu topp ba xam-xam hmm. soo góorgóorloo nag nit ne da ngaa génn ci diine wala da nga nangam wala da nga nangam boo ko faale ndax fay nal xaqaayiq nekk dëgg-dëgg yi laatu taxeeru du soppeeku biir asmaa yi ci tur yi almawdu yi teg la xaajal mbir yi tur yi du ko sensé fal asadu asad gaynde asadun gaynde rek la wayl sa maytoo di la tuddee nga xittan xittan muus wala yaxamtuta du ko dindi min basaarati si jàmbaaram in xulta boo waxee lay si nekku loo li ko ñeel ismun tur albatata ci ci ci ci dogu maanaam maanaam amul boo benn tur génn boo ne amul tur sax du ko tey jàmbar jàmbar moom si turam yi la boo ko jëlee ci xaw boo ne ko muus la tudd teewut génn rek la doon kon mbir tur mi amul solo la mbir mi làmboo loolu am solo sellal sa bopp nga tuddee ko tasawuf wala sellal wala dëddu àdduna wala soobu fooglu tur woo ko mën a jox baax na yonent la ko doon def comme fiq nee nga tuddee ko fiq nee nga tuddee ko lañuy jaamu yàlla loolu ak tasawuf tasawuf xuraafaat mooy caaxaan waa baatil ak ay neen wa daj lan ak ay nar nar mooy wax lu dëgg wa shahwatin ak ay pexe إننا نكون لا نعرف قواعد التصوف تصوف نظريات معيقلات فلسفية يكذب فيلسوف أو أفكار ولا عقلات أجنبية يكذب جامبر أو عقائد ولا بس سركيات يكذب بوكار حلولية يكذب واتش حلولية مولا يالا دفع واتش جامبر يوم يعني تصوف سبنا نشلو ci loolu dafa naa de ñi ñi askane loolu maa ngi ci biir maa ngi ci biir xam naa la ci aw ittihaadee wala benn benn mooy yàlla ak jaam bi mujj mujj nekk benn loolu ñoom seet nañ ci seet nañ ci seet nañ ci inna naa nag li nabrawu danañ dañ ila laa jëm si yàlla min hada ci lii kudd yi dem yii yëpp ñoom ñoo ko askane ni ñu tabaay nekkuñ ko xam nga yonent bi salaa sallam askane nañ ko ne alquran ay caaxaan la wa qaalu asaatiru awaliya alquran ay lépp la yonent bi ne maj moom dof la bari taraahu moom moo fental alquran ساحر لا جبر كن دا فاي نان في يالله لي تقل ديغنت نيت اك بوكام مي تخنا واخ ندخ تخنا يونت مل نو مل نو القران هاي كذبت قبلهم قوم والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب نعم nit ñoo yi wedd nañ ak kuréel yi gannaaw ga yonent bu mos a ñëw rek mbooloo moom dajaloo pour rey ko xool rek nuñ bone woon yonent bu mos a dajaloo pour rey ko wajaadaru bil baatil loolu ma ci intéresse laa bëggoon a wax fi wajaadaru bil baatil ñu ngi dàgg sante yonent yi ci caaxaan indi ay caaxaan teg ko dàgg sante yow li di xiddu pour ñu dindee ci caaxaan boobu bii ci caaxaan boobu dëkk indi ay neen solal ko mbuwam dëgg di weranteeg ñooñ dëgg pour dindi fa dëgg waaye loolu du mën a tax dëgg jóge fa tasawuf noo ko mën a tuddee jikko yonent bi jikko yonent bi leen tuddee ko dafa taxasus jagoo ci wàllu jikko yooyu rek comme ni jagoo ci wàllu jaamu yàlla rek comme ni tajwid jagoo ci wàllu ni nan la jàngee alxuraan rek loolu rek noo ko mën a tuddee loolu kese kon caaxaan yi ngeen andi pour lëndëmal lii naan bidaalaat soslaat yonentu xamutoon tariixaat comme comme mazhab rek yonentu xamutoon mazhab Maalik ma Maalik li ñu jàngale yëpp ci wàllu pratique mooy la yonent bi di ni bi santaane loolu la jàngale tur bi rek moo bees te suuf bi ak xaalu yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi او افكار فمنتظر مو اقرار ان نبي دي كل جامار ديرن او عقائد ولا بس بس سيركير دي كل بوكار هنو دي كل وات او اتحاد ولا بنو يا ديغنت يلا جام بي ديرن نون داج نان سي لول لب ورا تبرو دري جاب ني ان كل ما يخالف لب لو خم دنا اوتيك الكتاب القران والسنه السنه لا يقبل دنو تاويل نوكو تاويل كو بام دبو نيو وهو مكذوب من فلان تصوف لا داخل لو تي بوكو تبوكو لا wa mun saxum luñ taqal la bi ay din asimatin ci loxo yi yoo xam ne ay bàkkaarkat lañ wa nufusin daifa ak bakkan yu doot lépp luñ askanee tasawuf mu wuteeg alquran ak sunna mënoo koo taawil benn yoon ba mu nekk njub loolu fen la ñoom tasawuf dañ leen ci luñ dugal la tasawuf bokkut ci te ña ko jàpp tey askan tasawuf xamal ne ay nitu bàkkaarkat lañ nit ñu doy dee maanaam tasawuf doo ci gis mukk mukk mukk mukk mukk mukk lu wuteeg alquran sunna lu mooy nag ñu leen askan te yoon nekkul ci xam nga yonente Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk nii am na xadis yu bëri yoo xam ne askan nañ ko te waxut ndax loolu day tax yonent bi ñu ŋàññi ko xadis yi nga xam ne Maodo wala dañ koo fent mm-hmm. askan ko yonent bi ndax nit dana sukkandiku xas yonente Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw bu fekkee yonent bi yàlla bind mm-hmm. ay waxam sax dugal lañ ci lu ci bokkul tasawuf gii tamit lu ci dutee ñu dugal ci loo xam ne bokkul ci mais loolu nag boo si jàppee atte tasawuf ne tasawuf nii la mel na parce que kenn si ñoom tasawuf def na lii mu ngi mel ni fekk nga benn jullit bu naan sàngara nga ne lislaam nii la mel lislaam dañ na ci naan sàngara dañ na ci jikko yu ñaaw yi ku ko jikkoo sa moo xam ne jullit nga hmm. chrétien nga loo mën a doon lislaam contourne loolu nga nekk hmm. tasawuf it nga askanoo ko nga ñàkk ko askanee lu bon li ngay def yow la concerné mais yoonu tasawuf ne ko ci waaye léegi aw mbooloo bu ñu la xam ne suñu mbir a ngi nii hmm. ragal la jëfee ndigal yi bàyyi tere yi yore jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ay xaalam yow boo gisee lenn loo xam ne wut si nag loolu loo leen ko askane neen yow yaa dugal ci tasawuf ji bopp waaye ñii moom waxuñ li hmm. dégg Vraiment ne walla xam-xam yi yi nga xam ne yàlla jagleel na leen ko muy xam-xam yu sell te dara muy leen ko mooy set gañ set ba yegg ci ragal yàlla du leen yàlla di leen xamale loolu danañ ci ñëw ina naa naka ñun naarifu danañ xam a tasawuf a tasawuf madaaris mooy école ilmiya yi këju xam-xam wa maarif ak ay xam-xam fikriyatin yi këju xalaat yu sell waaye moom kullaha ñun ñëpp bi manaahijaha ci ay yoonam wa bara wa baraamijaha ak ci ay لوام وطرقها اك اي يونم دانك نيتي بار يب جيغن ثم سولف المثال وفق بوخ بلا على بدون كوي الفكر الاسلامي ني القران بك المسلم تصوف ايكولو خم خم اي خم خم لا يو خامي دا فاي بالالو خلات نيت كي مو نيك خلات بو جوب بو دوبو لي يالا بوك خلات ام وقت تي تي تي يالا ngene lu bëri tasawuf mboolem yooni tasawuf yi boo ko xoolee dangay gis ne dafay dafay jëmmal gox bi gën a kawe ci xalaatul islaam te mooy xalaat ci lu lay yokk ragal yàlla ci luy yokk nga foog lu yàlla nga bëgg ko xoolal rek Cheikh Tidiane Sy radiyallaahu anhu lam fa mu yegg ci yàlla ne doomu aadama bu bëggee yàlla war naa dem ba nga xam ne bu toogoon ci benn bët mboolem musibe yi di daanu ci kawam ci jamono boobu sedd yeeg mboolem jafe-jafe yi daanu ci kawam ci jamono boobu du mbébét lu toll ni sànq lañ dem ci ndax gis na ne loolu yàlla ko def te ñun nangul nañ yàlla mu yàlla goo xam ne yàlla du def mukk ñu naan na ñu ma xam bu koy Hmm? والوجه الأكمل أكل جيجنا مط لعذابنا نيرسمي تجن ومثال ياكسنا ياكسمي مثال تصوف دابا بريزانتي بجمل لجنا مط تجن لجنا مط اكزامبل لجنا مط تمثل دابا جمل في مثال الكمال مط في الايمان سيدم يالله والكمال المط في كل شيء يكون لك دابا يجي عند الدنيا لك مط سكر أقم يا الله تشيلوا له من سوء الحياة سمير مثل الخلاصة من من أكسج الزكية بسل لكل دعوة من البيب هو ترى بارك فيك جبرو من ذا جابنا هو تبي هو تجيب إن شاء الله رزق تامه لما يتسوف ما يعرف أنا سجام يا الله يلو تخون تك بقول لك سل سديك أنت سبب جام سبب كل ركب danaa koy wax toujours ne xale bu judd yonent ne ne mu ci fitratul islam ci islam pire gu raxul dara xale bu ponk lislaam defu si dara toujours ñaari baat si dañuy dégg julliwul xoolul joxul asaka ajul mag te mu ngi ci fitratul islam man ngaa nekk si mbir te ponk yi defoo ci dara xale boo defu ci dara waaye xale ba xam ngeen ne xamul bu may alastu bi rabbikum balaa googu ba léegi loolu la xam xamul yaayam xamul dara mais ba mu màggee ba commencé xam ci lañ ko togg ay jëf indil ko jafe-jafe togg ko lu diis loolu pour seetal bakkan bi la pour mu mën a delluwaat ci fitra bi nga xam ni moom la yàlla bindee te laa tabdila li xalqillaahi mbindam yàlla dara bu ko sant fitra boobu nag boo xoolee yonent jàngal nañu ci ñaata étape lañuy raxasee bakkanu nit ki ba mu mën faa yegg yonent jàngal nañu ko ci hadiis bu wér بن اتاب موي توب شريعه مم لا لو في القران قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سنين بغى يالا توب لين من يونت بي يالا بغى لين موتاخ بور نيت كي نيك جامب سيل فومو توب يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم توب شريعه مم لا يونت بو سي حديث با يالا دي واخني وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه sama jaam bi jege ñëwul ma li gën li ma farataal ci moom yaa ngi dégg kon fonk topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw loolu nga jëfandikoo azkaar yi wérd yi moo tax yonent dafa joxe wérd loolu mooy tariqa tariqa mu ngi si biir mission yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñii dañoo ñëw taxasus si ndax loolu mooy li gën a gaaw pour jegeel jaam bi boromam tudd yàlla ndax yàlla bu koy tudd mu tudd la gën a gaaw pour jegeel jaam bi boromam tax taxasus ci loolu rek bàyyi fiq ñeneen ak ñeneen ñeneen tudd yàlla googu moom la alquran wa wasbir nafsaka ma allazina yad'uuna rabbahum bilgadaati wal ashi yuriduuna wajhahu na nga téye sa bakkan ba ànd ak ñi nga xam ne ñu tudd yàlla suba ngoon te bëgguñ dara lu may jëm yàlla ji waxul ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla ngir aljana de ñi nga xam ne yuriduna wajhahu waaye nag ki nga xam ne xolam dafa sàggan ba mu tudd yàlla bul ko topp gis nga ñaareelu étape bi ci wasila mooy tudd yàlla moom la yonent bi jàngale foofu ci xadis boobu yàlla ne wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu sama jaam bi du leen di ma jegal ci ay naafila ba bëgg ko sama jàmm bi du di ma jégalu ci ay bu mu bëgg kon naafile yi farata yi moo gën mais ci naafile yi ci la la yàlla di bëggee loolu mooy ñaareelu wasil bi ñetteelu wasiila bi mooy topp ku dellu ci yàlla moom la alquran wattabi sabila man anaaba ilayya yow naa mu taqullah waaye wa kunu ma sadiqin an leen a ngi dëggu soo toppee nag ku dellu ci yàlla ci topp nga yonent bi yaa ngi def naafile yi wérde yi mooy tarix yi rek yaa ngi jàpp ci tarix bu wér yaa ngi topp ku yàlla bëgg su ko defee yàlla dana la bëgg su la yàlla bëggee nag moom la yonent wax ne fa iza ahbabtu kuntu samahu alladi yasmahu bi yàlla ne su ma bëggee jaam bi maay nekk bëtam bi nekk noppam mi nekk loxo mi nekk tànkam mi yàlla tudd na loxo rek yóbbaale jëmm yëpp daa yadaa abi lahabin ñaari loxo abu lahabin alkura maanaam jëmmam loo xam ne ci bu tuddee loxo <laughs> tànk bët nopp maanaam su ma ko bëggee nekk ko rek la bëgg wax na yàlla du xaaj yàlla nam lay nekkee nag du lu ñuy expliqué lu ñuy yëg la loolu mooy ihsaan gi yonent bi wax nga jaamu yàlla ba mel ne yaa ngi koy gis loolu il faut yàlla bëgg la si nga takkoon naafile yi gannaaw farata yi pour mën a yegg foofu kon ne xam-xam bi wala yëg-yëg bi ñii rek a ko man a am bidaa la déedéet du bidaa parce que yonent toog foo nga yegg ci yenn qualité yi yenn melo yi pour mën a yem fi aljana sax xanaa da nga ragal yàlla ko mën am pour pour yàlla nangul la foo nga tey am na yoo xam ni foo nga am melokaan yi nekk ci yow pour nga door fa su ko defee tasawuf du dara lu mooy ñaax la ci farata yi ne la des ci demal jàng ko ci téere yi mais jox la ay naafila ay tudd yàlla di la ñaax ci ay jikko yu sell nga ànd ak ku jege yàlla pour yàlla bëgg la innahu nag moom tasawuf asirqu mooy dëggu wala maanaam am kuldere wala wafaa ak wala isaar ak gënaleel nit ñi sa kaw bopp wala najjatu ak tedd wala këramu ak teraanga ونصرة الضعيف أقدم ملك لوط وإخاصة الملهوف أقتل كن بمخ وتعاون أقدم ملانت على البر تنباخ وتقوى رجل يلا وتواسي أقدم كانت بالحق تدق وصبر أمن وتسابق أجيت وانت إلى فعل جمت جف جو خمنا يمسر داي جمل الخلق جيكو القيوم بجوب أسحيو قوير دير موتسوف دقو أم كولري متل كولري غنين لين سبب تد am teranga dimbale ku lottu di xétali kuñ dakk kuñ bu max manam ku ku am problème dimbalante ci mbax ak ragal yàlla di dénkante dëgg ak muñ di ñeeklante ci jëf yo xamni daf lay da da fay fay da fay jëmmal jikko ju sel ju tedd ju wér yore jikko yonent bi ak xaal yonent bi sax ci tuddu yàlla loolu mooy suuf ana loolu luñ ci ngañ ومن هنا في ندرك لن يجد أن jot ana ne buur gu mag buur bu mag maanaam jug-jug gu mag laa tub naa duñ ko tabax illa illaa ala risalati lu may ci yonuntu leetari ruuxu wa ilhamati iman ak yankawalu gëm yàlla faw sa ruuxu gi set ba ay xam-xam di fa jugee faw sa gëm yàlla mag ba ay xam-xam di bal lu jugee ci yàlla ñëw ci yow pour nga mën a am buur gu mag dagg jëm sa borom wa tabattal ilayhi tabtilan na nga dagg jëm si borom foo nga am buur gu mat pour mun faa yegg inna sifaatu xuluqiya naka melo jikko yi wa nafsi ak melo bakkan yi wa ruux yi ak melo ruuxu hiya moom rasu maari chon bi mooy capitalu peuple bi nit ñi seen capital foo ñu am jikko yu sell bakkan yu sell ruux yu sell waaye yéen wal mu daxaraatu mooy lañ denc la gën a màgg alati nga xam ne tas na dana liggéeyal amuma xeet bi watar foo mu yëkkati bi rakk bi ci gawar gi al bushra mbégte ila xaayaati jëm ci doy ci waayam aloon yaar kawe jikko yu sell bakkan yu sell ruuxu yu sell mooy li gënoon a for ci luñ denc nga xam ne moo mën a defar xeet wi mooy tax mbégte yëkkati nit ñëpp ñu jëm seen càkkutéef bi gënoon a kawe gën a for taxoon yàlla bind leen te mooy ñu xam ko jaamu ko ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun foo nag nga xam sa borom door koo mën a jàmm mm-hmm. su ko defee loolu moo di tasawuf eh, in uridu l islam astantu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh